sama gars yi maa ngi jégalu de billaahi wallaahi wataalaahi tëddoon naa tëddoon naa mais Mathieu Trois Pommes ma yee Mathieu Trois Pommes dama ko seetaan après sama xol di metti ma ne oh taxal ma jóg quoi parce que man xam ma fan laa nekkoon quoi doon naa dégg ne Mathieu Trois Pommes si gars yi seen live yi seen live yi ñu naan Mathieu Trois Pommes léegi amatul ay vues amatul vue Facebook li may wax naa man defal Facebook ay live mais du ma ko def parce que man su la su ma su rek mën ngay ñu may xebee moo tax ma def dara dugal ko nii quoi quoi comme vidéo yi nii quoi tu vois moom daanaa dégg ñu ama trois comme dafa retourné vestam affaire yooyu wax ak nit ñi ngay wax ak nit ñi ci teggin ak yaru tu vois nga wax parce que on n'a pas besoin d'être vulgaire wala ñuy sagaté tu vois pour manam té ñi dégg ñu audience mais la majeure partie des activistes yi nek euh, yi nek ci diaspora bi man duma len sétane quoi parce que ils sont d'une indiscipline incommensurable pour ko na targa weesu na ko quoi tu vois ay règlement de contrôle quoi yow so faralé Macky Sall da ngay jël wax ñu ñaaw di teg ay Sonko di jaxase di saga Sonko di saga ñu manal jaar fu bon bo faralé Sonko ah di saga ñaan ak Macky Sall mais di saga di jaar fu bon di nangam tan man je je cautionne pas ça il faut être civilisé comme ay Issa Diène wala ay seeni seen mën nga ñëw taxaw nga wax ak sénégalais yi ñu dégg moo tax man ay je préfère ma seetaan Issa Issa mën naa seetaan deux heures de temps Issa fi du ma ennuyé wu quoi parce que dina wax lépp naa la politesse mu nekk ba di de mais ñi si des nag ñoom dañuy moodu moodu am maanaam musiba génn leen seen dëkk ñu bëgg ñëwaat xamuñu nu ñuy ñëwee wala ñu nuuru muudu lu yàgg ku ci mel ni ki ne Italie xaadim xaadim moom saa bu xëyee lu kii Sonko lay wax gis naa ko mu jël matala ko ne Macky Sall dóor la dañuy mu jox mu jox la poste parce que ñun ñëwuñu di wax lii nii pour ëllëg Sonko jox ñu poste déedéet Sénégal la teg ci raay dafa am patriote am ay patriote ku fi nekk patriote na mën ngaa gaaw dem du ko mës may Sonko muy jël di def ay ay affaire ay affaire bu marché gré gré ki daan na wax si Sonko bëgguñu loolu Sénégal lañ bëgg mu dem léegi ma ñëw si Mati Touré pom Mati dama la seetaan quoi ngay wax wax yu ñàkk teggin naan Sonko nii dama leen leeral Sonko yow ba problème ak activiste yi mais wax la activiste yi rek mais waaye a seen leader bi moo duggoon si jacuzzi bi ñu ndox mu tàng di wax waa ah, Mati yow la moo la jëlee Sénégal Mati Touré pom Mati la moo la fi jëlee mati sowtu sow nga doon def fa mu coowtu coow black label am ay problème casier judiciaire ba nga dem génn génn Sénégal ba léegi mënutoo ñëw gàcc moo lay rey triandé ay visa yow yaa Sonko bokkoo dafa nekk si impôt domaine am sens yor ay hectares yor ay di di dem di inspecter ay ay ay ay industrie ay yu mel ne ay suuka yëpp di gérer ay milliards taxul mu jaay ngorom yow mati show to show rek nga def black label nga def ay visa 3 millions mati gënal sa casier judiciaire Sonko de casier man maa ngi nii jox sama ndey ay milliards mais casier casier casier judiciaire vierge kenn musul oo sama police ne ko kaay sa doom ak moo tiraan kii ay visa wala moo lekk alalu jàmbur jox ko ay milliards nag waaye may naa ko jàmm di dox su njub di sol weex tal moo tax may wax nii à visage découvert yow mati koo mën a xas yaa ngi dox ci affaire kilifa bi non lu tax nga wax ci affaire kilifa bi da lay flashback lay doon di kilifa affaire visa yow dañ laa jàpp sa casier judiciaire naan arrêté condamné pour arnaque escroquerie yow yaa ñëw taw di xas Sonko Sonko bi xamante ne ay milliards amoon na possibilité am milliards bàyyi ko pour peuple yow ko ngay jëm a tolloon tollool ngor à la fin vous nous vous nous tympanisez quoi mati trois pommes ma jigéen bu ndaw amul tat day mer ndax du mën a dangal nga mën ni picc ramatu mi nga def naan Sonko lii laaj bi nii fi laa géej waay yekk yi nii mu géej mais ñu jàmm mënoo fexe fexe fexe fexe ba def tey muy ay yow ay séeri yérim sek li ngeen def mi ngi fii seen vous mati loo am tey dañaan triangle ba say sët dinaan seen maam triangle la moo fi moo fi moo fi visa waaye ba nga bàyyil say ah, sa ngor yow marché 3 visa rek nga jaay sa ngor Sonko des hectares ay millions leen waaye tamit ah bokku ndox jox ko jaam kopp ndox rek ngay sàcc di ko nëbbaat di ko yóbbu sa kër ah sa ndawaay boobu mais da nga soxor donc yéen yi laay waxal may leen jàmm quoi yéen ñi si diaspora bi ñaan ngeen fayda ah. saaga na kii suba nga ñëw ñaan naan xaw ma gigi mandikat boobu ku góoru bat bang boobu noonu puujam boobu man la day daw yi ngeen fayda quoi vous êtes en Europe courant dafa coupé fii courant dafay coupé leen waa Sénégal fii njàng mi baaxul yërëm leen waa Sénégal yéen ñàkk fayda waay yéen waa yi ñàkk ngeen fayda saaga suba saaga ngoon ñàkk ngeen fayda ku yëpp Sonko wala ku yëpp Macky Sall yéen